asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fu ngeen mën a nekk dañoo dellu siwaat nag tey ci vidéo bi ngir di naqarlu jëf joo xamante ni jëf nañ koo mu jëm ci yoonu Serigne Touba wi di yoonu murit wala ruur moo xamante ni jóg na dalati ci kaw yoonu murit may xamle nag nii li fekk maa ngi noy yi duma ci tay xanaa damay àbb bayitu Serigne Moussa yàlla sunu boroom yokk ay leeram yamu waxoon ni ab xaj bu mat kenn mënu koo tere baw ku tàbbitool boroom mu naa la mbaw mbaw ku ruur ci lislaami sëriñ tuubaa ji mbaate nga bañ alhaaji sëriñ fàllu la ci jublu mbaa jumaa ji njeem góor nga njeem jigéen nga maa lay xiiru matt la baw la ba ca fuuta tooro waaye noonu it li fekk noo ngi noyyi ku wax ci yoon wi loo ci warte wax walla nga def ci loo ci warta def dana danañu jóg pour dénoncer ko ndax bu ñu amul doole juñu ko mën a faje ci jëfitam man ko naqarlu ci sunu xol wala nu naqarlu ko ci sunu làmmiñ loolu mooy lan mooy semboolu yoonu murit moom la ñu dal ci kawam jëf ci jëf joo xamante ni man de xalaatoon naa ni loolu ku yàlla bind ñime woo ko ndax damay joxe exemple ci semboolu nation bi muy drapeau Sénégal drapeau ab tissu la mën naa doon malikaan mën naa doon beneen tissu waaye bu dee malikaan la bu la neexee nga jël tu malikan malikaanum fanweeri mètre ko mbaa nga xotti ko dara du ci am waaye bu fekkee dangaa jël genn wàllu mètre malikaan bu vert ak bu jaune ak bu rouge nga boole leen wut étoile bu verte def ca sañatoo ko lakk ndax doonatul piisu malikaan waaye drapeau Sénégal la doon di ab symbole moona ab tissu la boo xamante ni cherul te basin bi nga xamante ni bazin riche mètre bi dix mille francs lay jar wala lu ko ëpp boo ko jëloon tey taxaw buntu gendarmerie wala police taal teg ca mu lakk kenn du la ne lu tax nga lakk basin riche bi boo jëlee ciseau di ko daggatee itam kenn du la ni lu tax nga daggatee basin riche bi ndax ab tissu la rek li muy cher lépp waaye léegi nga xamante ni malikaan la mètre huit cent lay jar waaye composé nga ci drapeau bu Sénégal ñimewoo jël drapeau bi lakk ko wala boo ko defee des na la tëj boo xottee drapeau bi itam des na la tëj la ko waral mooy day drapeau bu Sénégal di symbole boo xamante ni bii nation bi la kon symbole dafa am solo mok institution yi un président de la république boo ko saaga wala nga wax ko lu nekkul dañu lay jàpp offense à un chef de l'État tëj la ndax ab institution nga song li tax may def vidéo bi nag mooy dañoo songu symbolu yoonu murit symbolu yoonu murit mooy lan mooy jumaay Touba jumaa Touba foo ko gis ci photo ak foo ko man di gis ci film wala photo sa xel dem Touba sa xel dem ci yoonu murit ndax ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Bamba bi mu nekkee Gabon ca Mayumba sampoon na fa ñeenti bant defoon ko jàkka daa fa jullee kilifa ak soldaar yi yeble fa ñu ñëw daaneel bant ya tasaare ko Serigne Moussa Ka nee na fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka su quartier gay liit Bamba dal di nodd ñuy maaj mu kabar noonu ba far ko gedd capitaine ba ñëw ni bàmba jàkka xewu fi bul nu xatal sa jullikaay bii xaju fi quartier gi waq ñëw tasaare jàkka ja njool màkka ñëw fa ni ko am nga maxraja njool màkka wan na ko ay hajaayib may ko ndigal mu taalifaat mawaahib ba mu bindee salli wa sallim njool màkka tontul ko alal mukallim jibrilu tegtal ko wa durru yaxsim buur yàlla tàmpeel ko jumaa yi boppam da tabax yaari jumaa ca réew ma te lay nga dellu dal di yeesal géew ma da nga tabax jumaa juréy fa njurbel kenn du ko buddi kenn du julli nërmal da nga tabax jumaa juréy fa tuuba te lee nga dem daru salaam ak tuuba kon symbole bii di jumaay tuuba bi ñu koy tabax sëriñ bi fekkewu ko waaye sëriñ bi moo ko digle woon ba ni woon bu ngeen ko defut sunu borom dana fi yebal ay mbindeef yu ko def ci 1925 ci nekkam la yebal doomam ak rakkam ngir ñu dem ci administrateur bu Cees ñu doon ko wax Tallëri ngir contrat jumaa ji lu gudda gudda gudd la dama doon wane rek fi nga xamante ni bii sunu symbole bi tàmbalee ko ci sëñ bi ba fii fa la ñu jaar contrat bi contrat bu gudd la boobu fekk na ñu dajale juróomi million ba njubloog ya ci tëlër yi def ba ci le 14 octobre 1930 cheikh moustapha el kérim attaqué ko ci tribunal hors classe bu dakaro kon sëriñ bi moo def lu contrat juma ji 1925 mu wolu borom darul mufti njaareem sant ko juma ji maa ngi enregistrement bi cheikh mahamad fadal mbakke yalla sunu borom yokk ay leeram mu ni borom darul muuti ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Shaaban la ko darul muhti, nee bi mu ñëwee Touba daf man yow fallu yow mi sawar kay dem ndokku seeti doj ya sëriñ Falilu Mbàkke nee ma dem dindi jël fa ñaar fukki dong ak juróom ñet ak ay ngaska and ak serigne Masamba dem fi nga xamanteni bi, moy mooy ndokku ngir seeti xeeri jumaaji serigne fallu neena ba ma demee maa for xeeru carrière wa moo tax mu daa wax ni maa for xeeru njëkk wi maa teg xeeru mujj wi bi sëñ bi ñibbisee Touba en 1927 borom daarul muxti dellu si daarul muxti soo demee ci discours Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu njëkk a def bi mu doonee Serigne Touba te moo doon woote miirub jumaa ji ma ngi ko cay leeral kon sëriñ Serigne Modou Moustapha 1932 mu tàmbali jumaa ji fekk na mu jëlee raay bi njaareem ba indi ko Touba lu ko waral bëgg matériaux yi ñu tabaxee jumaa ji saxaar gi man di ko indi ba Touba 1932 mu tàmbali jumaa ji ndox amul ñoom tubaab yi wax nañu ni sëñ Modou Moussa dafa wutoon mbànd yu mag yoo xamante ni bu nawetaa fu ab déeg taa murid yi dañuy dem root déeg ba ñëw sotti ko ci mbànd yi bu nooree ñu di ko tabaxee jumaa ji ba bi fi sëriñ Falilu Mbàkke wuutoo Cheikh Moustapha ci 1945 te tàmbaliwaat liggéey bi en 1949 ci la bënn jàjji fal gi nekk ci biir kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ji ñu di fa rootem ndox di ko tabaxee ko jumaa ji kon semboolu yoonu Mouride ak ko xamante ni ci Serigne Touba ba ci Cheikh Sidil Maxtaar ku ci nekk jëf nga ci sëñ Abdoul Ahad nee na Serigne Touba dafa waxoon ni jumaa yi Touba ji li ma ca bëgg. bu noppee nii waañ di mel ci kër noonee la jumaay njaareem di mel ci jumaay Touba ni kër di gën a rafete waañ noonee laa bëgg mu gën ko rafete jumaay njaareem ndax nee na foofa sëriñ Touba mosu faa julli ajjuma ndax mébétu fa woon dëkk kon lu biir la ni jumaay Touba mooy symbolu yoonu murit mu am nag ndaw sos ci diine chrétien la nekkoon nee dafa tuub doon ab julit jël boppam nee na tudde ko soxna jaara waaye li ma jaaxal mooy turu soxna jaaraam woowu saa bu bëggee def aw tojaanga la koy jël comme mbubb sol ko waaye boo dee suivre média yi wala la muy jëf ndax moom day musique turu boppam lañ koy wooyee muy Viviane nduur amoon na fi scandale ñëw ci barabub sëriñ Fallilou ni sëriñ Fallilou daf ko feeñu truqué fa ay foto ba indi woon fii wax ju baree baree bare tey mu def loo xamante ni man de jàppoon naa ni kenn ñimewu ko kenn xalaatu ko mooy anniversaire am bu mu doon def en tant que kuy yëgu ci musique nii dafay defar gâteau gâteau anniversaire ba nii ngeen ko gisee jumaay sëriñ tuubaa ji moom la jël mook traiteur ba ko ko lakkal muy mbulaañ sa ba ñu jël fariñ ak lañ koy booleel te xam ngeen ni gato la ca ëpp bu ñu koy defar sàngara dana bokk ci lañ koy defaree ngir mën a not euh, farine bi ba noo bëgg mu mel ni mu mel ni comme niñ ciy defee lëwiir soo demee Italie ci supermarché yi mburu yi ñuy jaay ndax ñoom lu ñuy jaay lu ne dañ cay def ingrédients yi ko composé lu ci bari ci mburu yi boo ko jëndee boo xoolee la ko comme ingrédients yi dañ cay gis ñu def ci tolto tolto mooy lan mooy graisse ak mbaam xuux ba tax na jullit ya fa nekk ak sénégalais yi ku ci jënd mburu da ngay xool ba xam ndax am na tolto boobu wala amu ko kon waxuma ni euh, gato bi def nañu ko ca waaye li ci ëpp te gata bu mage nonu ñu defar ko te defuñu ci sangara yaakaaruma ni war naa mën a nekk ñu jël symbole yoonu murit tabax ko jumaa ji xubba yi juróom-ñaari soror yi juróom benn yu ndaw yi ak bu mag bi ba mu doon juma moo xam ndax ba ñuy xiw si euh, fariñ ba def nañ kes ak luñ ca man di def waaye au lieu mu ci jumaa ji sax dafa jël turu soxna su tedd sa féeru ca poroxaan muy maam jaara bind ko ci kaw gato boobu nga xamante ni mooy jumaa ji beneen symbol bopp bu pare day symboliser Touba muy autoroute bi nga xamante ni Ila Touba lañ ko tuddee ndax bu eggee saa boo duggee ci Google wala internet foo tappee autoroute Ila Touba Touba moom la lay génneel mu jël ko jumaa ji kon ñetti symbole ngi noonu yooyu tabax nañu seen fëriñ mu doon jumaa ji ana nag lan lañ ko def ñu jël ko ubbi pour dugal ko ci biir ngir lakk ko ba ñu ko lakkee ba mu ñor ba doon ab ngatu barab ba ñu koy defee nga xamante ni musique lañ fay def ñu jël jumaa ji teg ko ci ab puus puus puus ko indi te kenn ku nekk xam na ab gato naka lañ koy def xanaa jël paaka ndax bu fekkonte ni day objet boobu dañ koo defar ci dénk wala lu man di doon wala aluminium ñu jox la ko nga yóbbu ko sa kër ni danga koy def ab meuble kon desu su ca wax dara waaye lii mburu la moo xamante ni bii bong-bong la boo xamante ni bii dañoo yori paaka di ko dagg drapeau bi boo ko lakkee ñu tëj la ndax symbole nation bi la ah jumaay Touba mi symbolisé yoonu murit moom nga ñeme koo jël dugal ko ci fuur di ko lakk yemoo ca ba nga ko génnee dañuy jël paaka di ko fejarte tàmbalee ca soror ya di dagg muy rot di dagg muy rot di dagg muy rot ba dagg bu ñuy dagg dañuy daggaale turu soxna su tedd su ñu ci def dañuy daggaale euh, Ila Touba ba ñu ca def kon symbole yooyu yépp moom la ñu yor paaka di ko fejar di ko def ci palaat di séddale ba jumaa ji ñu tegoon ci kaw puus-puus bi dootoo ko gis ndax màbb nañu ko ba gisatoo loolu jëf la joo xamante ni jàppoon naa ni kenn xalaatu ko kenn ñemewu ko ndax symbole nation bi muy drapeau bi boo ko lakkee ñu tëj la waaye symbole yoonu murit da koy jël dugal ko ci fuur lakk ko génne ko di ko fejarte te kenn du la ci wax dara ndax Viviane loolu rek la def ndax nee naa leen woon ca tàmbali ba ñaari ngato la defar ba gato wax naa leen ni mooy jumaay Tuuba kon mbokk yi ni seetaan xool leen ñaareelu ngato Viviane bi ci anniversaire am bi lan moo composé ñaareelu ngato boobu ngato baa ngi nii ngeen jàkkaar lool ku tedd ki xaadimu rasul ci Ahmadou Bamba moom lañu def ci gato bi wërale ko ak ay sondel loo xamante ni bii diine jëmu bàyyi ko woon moom Viviane Ndour muy diine chrétien moom lay symboliser mu jël Serigne Touba def ko ci ab gato te ngato bi bu ñu noppee fa ñu jaarle woon jumaa ja foofu lañ koy jaare mooy jël paaka di ko daggte gis ngeen photo bi nii Serigne Touba la jël def ko ci gâteau bi mbokk yi Jeune Afrique bi mu fi caricaturé Serigne bi dañoo jóg wax ba directeur de publication ba jóg jéggulu moom Viviane mi nag ak ña ko def yàpp yoonu murit la ñu def ndax li doon ay murit ci senegal doon ko ci bitim réew màggalu sëriñ Touba gi bu ñëwee ñu ni ñett wala ñeenti million daje nañu fi nga jël la leen symboliser di ko ñàkkal fayda bokk yi man yi lii euh, man jàpp naa ni lu ëpp la te musuma woon xalaat ni doomu aadama ñeme na lii loole nag ka fi demoon ca barabu sëriñ Fallou ni Serigne Fallou lu da koo feeñu dañu topp ko di ko tox di ko tox ba mu reconnaître ni photo la woon bu ñu monté kon Viviane Ndour lan lay wut lan la guuxale yoonu murit wii ndax dafa am ñu nekk ci gannaawam xawma waaye li mu def su fekkonte ni ak tuubam su fekkonte ni ak tudd soxna jaaraam daf koy wane ci ab liggéey bu ñuy woote Tuubaa mu man ca wala ñu woote liggéeyu doomi sëriñ Touba mu man ca ba tax mu am benn sañ-sañ ci sëriñ bi ndax sëriñ bi ñooñam ñi sant Mbàkke sax li ñuy bëgg bëgg sëriñ bi jeex ca tàkk du tax ñu jël ko di ko màndargaal ci ay ngato wala ñu jël jumaay Touba di ko màndargaal ci ay ngato kon Viviane Ndour loolu mu def fan la ko teg sabote lay def ndax mënoon naa jël instrument ya ñuy musique dem fi ngato boo xamante ni guitare lay doon wala tumba wala tambour wala euh, euh, euh, ab saxo wala ab trompette wala clavier wala lu man di doon ñu rangale ko ni ab orchestre lañ yor gato bi lii la kon kenn du ca ax dara waaye li tax jëlul symbole bi nga xamante ni bii mooy monument ba nekk centenaire jëlul beneen symbole waaye mu tànn symbole yoonu murit def ko ngato mani bokk yi li ñaaw na lool te trop c'est trop jóg wax dafa jot may wax nak ni man day sama kadu amul valeur ma sañ-sañu it jëf waaye nag kon ma am sañ-sañu wax ndax am murit la ci yoon wi la bokk waaye mbira ngi daal moo xamante ni bii suñu ko bàyyee mu wéy noonu danañu gisaat leneen sëriñ Touba fowul foluwut kon fa ñuy foye wëree su faa yóbbu sëriñ Touba te kenn mënuma wax ni ma mas naa gis benn gâteau bu ñu def jëmmi doomu aadama wala fotoom kon lan moo waral ñu jël jëmmi ku tedd ki xaadimu rasul ci Amadou Bamba def ko ci ab ngato wërali ko ay sondel taal ko te damaa ñimewut ca dafa rëy lool ci man waaye nañu defoon ubbi fuur ba dugal ci ngato bi nga xamante ni bii mooy jumaa ji ngato bi ñu def sëñ bi tam dañoo ubbi fuur bi dugal ko ci biir lakk ko ba noppi doog koo génnee kan moo ñemee am photo xalaatu jël photo Serigne Touba di ko lakk bien vrai que ni photo mbariwul benn la ci am moom Viviane nag jël na yi sëriñ Touba ji dugal ko ci pour lakk ko jël na sëriñ bi def ko ci ngato dugal ko ci fuur lakk ko mani suñu waxut ëllëg danañu gis leneen ci yoon wi ndax am na yu fi xew léegi yoo xamante ni bii kenn mësu koo ñime maa ngi fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké benn discours am bu muy wax ni day lépp loo xamante ni bii yoon wi yëllawu ko wala dëkk bi ku ko bëgg a def dangay jaar ci sama ngàng mi ngàng mooy sama gannaaw gi maanaam da nga may daaneel jaar ci sama kaw doog a jëf li nga bëgg a jëf ma ni ndagam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal nañu ko sunu borom fayal moom mooy joxe jëmmam maanaam ngir défendre yoon wi moom day sëriñ Tuubaa waajuram defu ko woon waajur ab sëriñam la ko defoon waaye nun day lanu sëriñ Touba defal war naa tax waxuma sunum ngàng waaye défendre sëriñ Touba ak yoon wi war noo jaral sunu bakkan kon mbokk yi am na ay kuréel yoo xamante ni jokk nañu incha rabbi lii Viviane def danañu ko ñaawlu ba mu wóor ñépp ni lii mu def tegu ko fenn awma droit joxe ay instruction ni nañ ko nangam waaye nag am na kuréelu yoon bi yoo xamante ni bii am nañu droit porter plainte ndagam boo eff boo offensé un chef de l'État ñu tëj la boo lakkee symbole nation bi ñu tëj la boo ko xotee ñu tëj la lan moo tax symbole yoonu murit wi di jumaa ji fotob Serigne Touba jëmmam nga jël ko reproduire ko cib gato jël ko dugal ko cib fuur lakk ko jëf nga jëf ju ñaaw génne ko daggate ko ak paaka fejarte ko jëfe ngi noonu jëf jëf ju ñaaw la mbokk yi kon incha rabbi loolee danañu ko topp ndax am na fi ay kuréel yoo xamante ni bii défendre ndonoñ Serigne Touba yi moo leen tax a jóg bokk na ca kuréel gu mel ni kuréel gii am Amsatou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jiite yal na ko sunu borom gën a taxaw gën ko dooleel ci taxaw bi nga xamante ni mi ngi koy taxaw yoonu maamam wi te way juróom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké itam taxawoon ci taxaw boobe kon lii daal man moom laa doon indi doon wone sama naqar ci jëf ji nga xamante ni Viviane Ndour jëf na ko te mooy jël symbole yoonu murit def ko noo xamante ni kenn mësu koo xalaat léegi nag bu ñu ko bàyyee nii mu jàll ëllëg danga gis ku dem defar sa beer ba noppi jël photo jumaa ji taf ko ci butéelub sàngara boobe wala leneen kon mbokk yi jóg dafa jot man nag ku mu neex nga ni waa ji dafa bari ay wax waaye lama tàmbalee woon rek ci bayitu sëriñ Moussa Ka woowee moom lay wax euh, euh, euh, lu ma ci góobe nag gar ku ma ci saaka ku ma ci dóor ku ma ci xas lu ci waay man di wax sëriñ Touba jaral na ma ko ku ma ci rayoon sax défendre Serigne Touba su ma ci faatu woon sant yàlla dong lay def ndax sunu tey ak sunu ëllëg ci Serigne Touba lañ ko yaakaar te li mu woon fii ci àddina bu nu diggee ëllëg nu war a yaakaar kon jëfe ay ndigalam bàyyi ay terem waaye nag lii mu fi bàyyoon mu ñor ko ndax jumaay Tuuba symbole bi ñu song yoonu murit symbole yoonu murit la waaye symbole lislaam la ndax jumaay Tuuba ji ba ñu koy tabax bu julli jotee ajjuma wala julli juróom toroxo yépp ñoo fay julle du ay murit rek ñoo fay julle foo ko gis itam danga xam ni lii néegu bi yàlla la jumaa néegu bi yàlla la te yàlla jullit yépp ko bokk kon li nga xamante ni Viviane laal na ko mooy symbolu l'islam dooga doon symbolu murit ndax jumaa ji biñ koy tabax l'islam a taxoon Cheikh Murtada Mbacke yal nañu ko sunu borom fayal neena jumaa yi murit jumaay tijaan amut jumaa jumaay yàlla kon néegu bi yàlla na xamante ni bi abra ba mu jógee ni day songi kaaba ga gis ngeen la ko ca daloon mook ñaayam ya Viviane Ndour nag ak ñamu àndal jóg nañu songu jumaay sëriñ tuubaa ji jóg nañu songu Serigne tuubaa kon mbokki taalibe yi luy jot jot na lama ma tàmbalee woon rek ab xaj bu mat kenn mënu koo teree baw ku tàbbitool boroom mu naa la mbaw mbaw ku ci lislaam yi Serigne Touba ji wala nga bañ alhaaji mbaa jumaa ji njeem góor nga njëm jigéen nga maa lay xiiru matt la baw la ba ca futa toro bi yoon nag jigéen moo ruur lislaami sëriñ tuuba ji jigéen moo ŋàññ jumaay sëriñ tuuba ji kon ni leen moom laa leen indiloon ci ñaawlu jëf ji nga xamante ni Viviane Ndour jëf na ko maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu